يا يمين لم تسليم وعقله تعلق في فيز وما هو سامعه نختبيت لساج عليل متعاجل ولم يتميز جامع وصوامع شقيان يا عم جلال يريد Ahmad Tidiane Serif waay Serif Cheikh Tidiane yaa am jaloor yu rëy yaa am nga ni la ci may yaa rabbi yaa jaraway yow Cheikh Tidiane sa ruugi mooy tudd yi xam-xam yu sell yi yi wërsëg yu yaatu yi est ce que yi Cheikhu Tidiane sa ruur gi mooy tëkku yi xéewal yu yaatu yu rëy ak wilaaya di may yow Cheikhu Tidiane yeneen ba tallal na baaraam mu diggam baaraam ba ca sës di wax ci sa ruux ak ruuxam lu kéemaane yeneen ba nee na la warlu naa la lii ku la gëm te am ca pas-pas bu deewee tabbi ridwaan لا إله إلا الله شيخ سيدي أحمد التجان mboolem mu lii man na naa lii te yàlla bu baax gannaaw ba jaayante naa ak Cheikhu Tijaan Cheikh Tijaan te sax su fekkoon du yow fii am na weddu fi di fi feeñ yow Tijaan keroog bu saa taxawee fa suñu ya feeñ ñuy saaman laay ay yonen ñun Tijaan laq tab ya seq seeni baaraam yooyu rëccu ndax li nu ñee danaan su doon tey ñu Tijaan ñuy lajj lajj danaan ñi lambi yaaw la noom ay musulin ñu naan ñun ñoo di tijaan يا شيخ احمد تجان مسالمنا مسالمنا شوفي الجدب foofee Wadi Muhammad Cheikh Tidiane cëri yëpp yaay ki ko moom Cheikh Tidiane nguur yëpp yaay ki ci toog xat mi kat mi yaa moom Cheikh Tidiane Cheikh Seydi Ahmed Tidiane يا شيخ أحمد تجان سالمنا Cheikh Tidiane tofil gi dimbal foofee wadi Nu'man Cheikh Tidiane cër yëpp yaay ci ko moom Cheikh Tidiane nguur yëpp yaay ci ci toog xam mi kat mi yaa moom Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane sama xol bi yaay ki ci fees Cheikh Tidiane sama xol bi yaay ki ci fees Cheikh Tidiane mbégte mi yaa ma ko sol billaay may bég di bégle a cheikhi cheikha tijaan sas njaama gi man awma cheikh ku dul li may tilim tilim yaakaar naa tijaan ay cheikh tijaan sarax ma jàpp sarax ma jàpp ma ku bëgg Seydi Ahmad Tijaan Cheikh Tidiane sunu xol yi yaay ci ci fees Ibrahima Dia tudde doom ji Seyduna Muhammadu maami Cheikh Tidiane Ibrahima Dia yonent bi mooy gën ci mbindéef mooy maami Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane mooy xayrul wujudi yonent bi mooy sayyidul wujudi Ibrahima Dia ñu tuddee sa doom ji maami Cheikh Tidiane Ibrahima Dia Ibrahima Dia yonent bi mbooleem teraanga yi ak xiiwil yi moo ko waral mooy suñu wasilatu xaqan inda rahman yonent bu ne balaa dem ndaanaani ndaanaani yaa leen may ku ñuy daane Ibrahima Diagne nga tulli sa doom ji yonent bi ngeen di bindee maami Cheikh Tidiane Ibrahima Diagne Cheikh Tidiane kon sunu xol yi yaay nit di fees Cheikh Tidiane mbégte mi yaa lu ko sol billaay ñuy bég li bégle a cheikh yi cheikh Tijaan sa jaam ngi abadan man duma cheikh ku dul li may dirim dirim yaakaar naa la Tijaan ay cheikh Tijaan sarax ma ma jàppal ma jàppal ma tey ëllëg bul ma seetaan Cheikh Tidiane nga fóot ma laabal ma billil ma te àggale ma may fii ci leer bañ daje jannaatu ridwaan Cherif bi yaa ma ta way Cherif bi yaa ma ta way sa werd wi ma ta ngoy sa julli neex na ta doy sa ñan du xaaraan sa géej ma ne su ko xuus su ko xuus say may ma ne su ko lim ma ne su ko lim sa kaalu bi raw ñuy màggal ci biir daan kon Cheikh Tidiane sarax ñu jàpp ñu sarax ñu jàpp ñu jàppal ñu jàppal ñu te jàppale ñu te jàppale ñu tiit ëllëg bul ñu seetaan Cheikh Tidiane nga suut ñu laabal ñu billil ñu te àggale ñu ñuy fii ci leer mañ daje jannaatu ridwaan ñu daal di fay gis waaye loxo ca kaw maa ngi jégalu bu baax a baax maa ngi jégalu bu baax a baax